salaamaaleykum mbokk yi ñu saxoo ak ñu bàyyi xel fii ci Al Haïbou TV nag ñu dikkaat ci njariñ lu am solo ñu nekk ci weeru am njariñ weer wi weer wu bëri njariñ di weeru rajab weeru rajab nag doon weer woo xamante ni bëri waa na njariñ yoo xam ne mu ngi ci weeru rajab ñu dikk nag ànd ak sëñ Mamour Mbacke xam sa diine allah mu dikk ànd ak ñun ci weeru rajab ak ay njariñam bis yi nga xam ne tamit baaxoon nañ ko woor jëmmi rajab daal am na ay yu bare bëri bëri yu ci nekk ñu ànd ci daal ak eh, si maamu Mbàkke xam sa diine incha allah mu indi ñu ci ay si maamu dañu wax ne képp ko woor benn bis ci rajab mooy weer wi nu nekk nii ku ca woor benn bis képp te boole ko gëm yàlla ak fàggu tiyaaba eh, des na ko warlul ngërëmal yàlla maanaam warlul warlu na ngërëmal yàlla tabaaraka taala ngërëmal yàlla gën a màgg te dañ ko dëkkal ci firdawsi ba gën a kawe firdawsi ba nga xam moo gën a kawe ci aljanna yi fa lañ koy dëkkal yàlla dana ko nàndal ci aljanna ci dex gi tudd rajab am na ci aljanna dex ko tudd rajab goo xam ne ku dul woor rajab doo ca naan dex la goo xam ne moo gën a weex meew moo dàq fuuf lem moo gën a sedd galaas ki woor benn bis ci rajab mel na ni ku jaamu yàlla ak dundam lépp dund goo xam ne jaamu yàlla ga ay bis yépp da ko woor guddeem yépp mu fanaane ko naafi la dañ ko bindeel yool bopp te yàlla du ko mbugalati mukk te dañ ko bindal koorug ñetti junniy at mel na ni ku goreel junniy jaam dañ ko bindal yoolub junni xaj ak junni umra yàlla dana ko tabaxal ci aljanna junni kër ak junni appartement apartement bu nekk dana am junni chambre chambre bu nekk dana am eh, junni xuuru ayn yàlla dafa tabax junni pale pale bu nekk dana am junni appartement appartement bu nekk dana am junni chambre chambre bu nekk junni xuurul ayn fa nekk yoo xam ne soxnaam lu ñu doon xam ne yoo gën a taaru fuuf jant bi junni yoon te dana tàbbi aljant dee su ko xisaab loolu lépp nag ci benn woor benn bis ci rajab la kon lu am solo la ku ci woor ñaari fan liñ waxoon ci ki war benn bis dañ koy ful ñaari yoon defal ko ko te fulandi bu nekk dana toll ni mboolem montagne yi ci àdduna ku woor ñetti fan ci rajab yàlla dana doxal diggante ak sawara baaraas boo xam ne guddaayam doxub at la soo doon dox am at distance ba ngay dox mooy guddaayu baaraas koor ci rajab ñeenti fan des na ko musal ci balaa musal ko ci ak ndof musal ko ci ngaana musal ko ci ër ak yu deme ni ñoom musal ko ci fitnay masiixu dajjaal koor ci rajab juróomi fan dana wóolu mbugalum bàmmeel kenn du ko mbugal ci bàmmeel ku ca woor ci rajab ba tey juróom benni fan suy génn ci bàmmeelam xar kanamam mooy gën a leer weer wu am ñeent fukki fan ak ñeent ku ci woor juróom ñaari fan ñu tëjal ko bunti jahannama yépp juróom-ñaari bunti jahannama yépp ñu tëjal ko ku ci woor juróom-ñetti fan ci rajab ñu tijjil ko juróom-ñetti bunti àjjana yépp ku woor ci rajab juróom-ñeenti fan suy génn ci bàmmeel day wat naa laa ilaha illa allah te xar kanamam dee ko defu ko jëmale fudul aljanna ku ci woor fukki fan ci rajab yàlla dana ko defal ci buy jéggi siraat kilomètre kilomètre bu nekk ñu tegal ko fa ab lal boo xam ne su ca àggee nopp lu fa door jàll mbokk ñoo ko déggandoo kon weeru rajab a ngi noonu di weeru bëri njëriñ te tamit comme noonu ko si maamoor xam sa ba si xam sa diine waxee rek képp koo xamante mën na cee woor doonte ne benn fan sax mu woor ko incha allah yàlla yàlla defal ñu yiw ci lépp loo xam ne def nañ ko ci yiw rek fulal ñu ko barke Cheikh Khadim